ok euh, boo ma nee loolu du catastrophe. ñaari nit yi dee démb ci rëbës loolu moom catastrophe la xanaa. loolu de loolu loolu ñoo xam dañu nekk ci loxoy yoon. xam nga loolu maa ngi jaalee njabootu ñi nga xamante ni ñoo génn àdduna mais xam nga loo xamante ni nekk na ci yoon duñ ci mën a wax parce que communiqué bi nga xamante ni moom laa gis muy administration pénitentiaire def ko ñu ne dafa amoon benn étincelle boo xam ne ni jóge na ci benn ventilateur mu am bousculade wala. Euh, jaxasoo bu fa am ñu am ñaari nit yoo xam ne génn nañ ci àdduna seeni corps mi ngi Aristide la lan rek ñuy def autopsie bi ibbi nañ. autopsie bi pare na ah ñu ngi ibbi nañ ab l'enquête voilà mais ibbi nañ ab l'enquête parce que wax ni autopsie bi ko wax. waaw léegi ibbi nañ ab l'enquête pour xool la nga xamante ni moom moo indi loolu. loolu wax dëgg yàlla loo xamante nii la ñun dañu koy méttitlu et loolu dafay indi encore la nga xamante ni moom mooy politique bi président de la république. bëgg institut pour ñu wàññi ñi nga xamante ñoo nekk au niveau des prisons politique pénale boobu je pense que war nañ ci gën a góorgóorlu pour que euh, condition détention yi aussi ñu gën ci góorgóorlu ba nga xamante ne ni euh, ñi nekk ci prison yi gën a am aussi ay conditions. mais président ku ne xam na ni gouverner c'est prévoir mhm. au delà de sax nga prévoir. Mhm. mais dafa am koo xam ni Guy Marius Sagna lay wuyoo. Mhm. génn ci kaso bi bu yàggul. toog fii nga toog. di wax. mitit bi nga xam ne waa Rebeuss ñu ngi koy dund. Uh-huh. ba daanaka yaramu ñëpp di daw ci loolu. Uh-huh. nekkin bu bon. nekkin bu ñaaw nekkin boo xam ne dara rafetu ci. Uh-huh. mais loolu alerte la. waaw ci un gouvernement xanaa. xam nga Guy Marius Sagna barki dem boo Ndiaye la wax. la nga wax ñun ci douzième législature. monsieur maître War. moo nekkoon li nga xamante ni mooy président de la commission des lois ci assemblée nationale. yaa ngi fàttaliku ba Moustapha Cissé di wax ne. bi mu duggee rëbës dafa jooy parce que ñun naam ci pouvoir la ñu nekkoon mais dañu ne dañuy dem seeti ña nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw seen condition ah, de vie xam nga la moom ma jaaxal ci li ngeen wax te eggalee waaw déglu ma rek ma mooy loo xam ni dadul am suivi président Mbow suivi bi dina ñëw cest dem def ay tournée def seen def def benn mais après lan la jur xam nga nag boo laajee rek ñu wax la bi ñu demee def tournée yi bi ñu paree on a écrit un rapport déposé ko ci table président de la république président de l'Assemblée nationale mu transmettre ko le gouvernement à travers le président de la république bi ñu ñëwee automatiquement ci la ñu indi li nga xamante ni moom mooy libération conditionnelle. li ma lay wax ni suite à notre mission boobu ci la ñu dox mu am ay libération conditionnelle parce que dañu jàpp ne comme. Euh, code pénal bu Sénégal euh, ci loi justice loi yi permettre na ko war nañ ko appliquer automatiquement dafa am suite. suite bi mooy suite bi mooy ay libération conditionnelle yu bëri yoo xamante ne amoon na pour désengorger d'abord les prisons beneen suite bi mu am mooy ci LFR booba noonu ca année boobu ñu jël un milliard pour réfectionner yenn dëkkuwaay yi nga xamante ni ay prison la nekk biir Sénégal. ci LFR loi de finances rectificative ci at moomu la donc loolu. am na mais loolu changé wul dara ci condition de ah, vie. Ah, non non changé na ko parce que bi ñu ñëwee ñu yokkaat la nga xamante ni moom moo. chambre yoo xam ni ay 300. 400 personnes ñoo ci nekk aussi nit yoo xam ni benn yoo nekk par da nga laaj luy lu lu changé. ma lay wax li changé du ñu tëdd du ñu sangu. 700 francs la ñu fekkoon pécule bi ñu yokk ko def ko 1000 francs xam nga loolu ci condition de vie détenu yi dafa améliorer la nga xamante ni mooy conditions yi ñuy nekke donc loolu bokk na ci li nga xamante ni ni ñu ngi maintenant loolu terewul ñuy continuer di def plaidoyer di continuer di ñaax gouvernement bi pour que ñu gën a góorgóorlu ci condition de vie li nga xamante ni moom moo am ci biir prison yi. li ma wax mooy koo xam ni génn na prison def alerte bu mën leen c'est mais loolu mooy li mujj da nga ni bërki démb la wax. waaw mais bërki démb la am la wax. mais démb la li xew xew mais xam nga moom wax na li nga xamante ni moom la gis nee na wax na li nga xamante ni moom la xalaat nee na mais man dama lay wax avancé yi nga xamante ni am na par rapport ak condition yi nga xam ne moom moo amoon ci détenu Sénégal yi avant. ak li am léegi. mais loolu Abdou Mbow yow yaa koy wax. man Abdou Mbow mais non yow yaa koy wax man yow yow APR yéen a koy wax. que man man man li ma li ma remarqué mooy ko dafa mel ni da ngeen xamul prison yéen waa APR. waaw mais te man gëw ma ni sax a loolu ba ci keneen parce que euh, du ma wax diw ak diw ak diw mais bari na bëri na bëri na ñoo xamante ni def nañ prison loolu moi je pense que loolu du wax ji wax ji mooy. ci la nag ñun même gu ñu. defoon prison parce que loo xamul yow nga teg ko ni dafa yomb. xam nañ ko parce que ñun ñi nga xamante ni ñun la ñu dénk papa ngañ dénk ñu ñu ñuy yaataa yéeme dañ ñoo dénk ñuy këstu xam li ñu dénk ba pare di ci indi ay saafara loolu mooy li nga xamante ni ñun noonu la ñuy doxee. mais Abdou yàggul dara. dafa am coow foofu ba ñu rey fa nit loolu yàggul li may wax nii ci deux ans la toll. xam nga li am ci prison yëpp bu ñu ko jëlee wax. 1960 ba léegi chaque jour mën nañu wax. benn bi wax ci 1960 ba léegi mais dama ne non dama lay wax. non si parce que dama lay wax ne la loolu taxul conditions yi bañ a changé changé na papa nga ñi doon dem rëbës ak ñi dem rëbës léegi xam nañ ne rëbës na mu meloon melatul noonu soppeeku na. am na ay mbir yu ñu war a gën mais soppeeku na mooy ay nit yu fay toog pendant un mois du ñu nelaw wala trois mois quatre mois du ñu sang wala une semaine du ñu loolu gis Guy Marius moom moo ko wax moom la ah, moom la wax moom mais loolu moo am yu tam. waaw mais dégg non moom moo am. waaw waaw ah, ko dégguma ko. Ah, moom ci moom laa yooyu tam. non ah ah ñu ngi fay dem nag ñu ngi fay dem nag parce que ñun on a la prérogative de visiter les prisons te ñu ngi koy def. non euh, te bu ñu demee dañuy waxtaan ak aussi les détenus. d'accord